ci waxtu woo xamante ne ma nga doon tas xibaar ci média Sénégal yi yu bëri moom moo wàdd delsi wat na ci plateau bi waaye bi la yoon xibaar bu neex la indi ci seen bi animateur bi takk na soxna su rafetaaru jongama ndawam saa ngi wuyoo ci turu nday soxna Sonko jigéen bu taaru te siiw lool ci pecc mi ñuy wax wu yaay yooyu moo demul fu sori xolul fu sori daanaka ci li ko wër la yem ngir mën a gis soxna soo xamante ne dina ànd ak moom ci giiru dundam doomu DJ Prince bi takk na nday soxna Sonko jigéen ni daanaka soriwu ko loola ci wàllu liggéeyam moom ndaw si fi nekkoon di def people di ab pecc mu bees mu ñu doon woowee wu yaayoo yi boobule pecc gu mu àndoon ak ñaar ci ay xaritam defoon na buzz lool ci internet yi daanaka bu ñu fàttalikoo ci boobule fecc ca la ndey soxna Sonko daal di feeñee ba DJ Boubs daal di koy yóbbu ca tele ba mel na ni taaram ba mujj naa luqi ba tub moomoo ne woon ca 2STV ñoom ñaar ñi seen ànd ci mbëggeel mujj naa ndam ndax ab sëy sosoo na ko ci suñu njort bu rafet njaboot gu barkeel dana ca tegu waaw këy mbëggee la ngoo fu ne lay jaar Tactic TV mi ngi leen di ñaanal yàlla dëgëral seen sëy musal leen ci seytaane te juboole leen jërë ngeen jëf